dañ fi ñëw tey pour euh, euh, recevoir ay ndimbal yu nga xam ni suñu ay partenaires suñu ñaari partenaires ñoo ñu ko indil tey euh, benn partenaire bi mooy DKT beneen partenaire bi mooy UNFPA ñu ngi ko def nag ci présence suñu suñu ay partenaires aussi de mise en œuvre notamment la, présidente de l'association des Gor et la présidente de l'association nationale des sages-femmes du Sénégal, en présence aussi du représentant du, de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Madame le conseiller technique ici, ici à côté de moi. Donc l'une fille fi indi un matériel de protection pour personnel de santé vie et personnel communautaire parce que xam ni xeexu mbass mi nga xamni mo fi nek moy Covid 19 personnel de santé bi ñoo nek vraiment à la première euh, euh, waaw à la première ligne et euh, ministère nak état bi mi ngi def ay jéego yu am solo pour les protéger mais matériel da fay ñew rek renforcer li nga xam état bi mi ko mi ngi koy def pour protéger ce personnel li ñu bëgg nak moy ñun en tant que responsable de la santé de la mère de l'enfant mooy que ñu xeex ak Covid bi ñu ñëpp aussi ñu faisons ba service yi nga xam ni ñooy euh, santé euh, yaay ak doom service yooyu mën a continuer ci structure de santé yëpp muy poste de santé muy centre de santé muy hôpital te loolu nag ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi liggéey et bëgg nañ d'al, xale bu nga war na ñàkku ñu ñu ñu ñu ñu mën ko ñak ci structure de santé yi jigéen bu nga xamni soxla na service muy consultation prénatale muy accouchement muy leneen planification familiale mu man ko am ci structure de santé yi xalé bu nga xamni aussi fièvre na ñu man ko fajj ci structure de santé lool dal moy suñu objectif motax ñu ni nañu renforcer waat équipement bi nga xamni de protection bi nga xamni sage femme infirmier agent de santé communautaire nous gens qui à la première ligne nous renforcer l'équipement de protection